Boubacar euh, Samb maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Boubacar Samb nekk euh, délégué général à l'engagement citoyen de Gëm Sa Bopp coordonnateur départemental bu Pikine ma lay laaj euh, déjà naka nga gisee affaire huit milliards yi nga xam ni dañ ko may Marine Le Pen Hadjibou Soumaré di ci interpellé njiitu réew Sénégal mu bari coow ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am ndey Kumba ginnaaw ba ma la nuyoo nuyu ñëpp ñoo xamante ni tey ñoo ñuy nga xamante ni tey ñoo ma dooleel di nag ki nga xamante ni mooy suñu président coalition muy le président Bougane Gueye Dany euh, li nga xamante ni tey moom la ñuy wax ni euh, le président euh, Macky Sall loo ko jox Marine Le Pen yaakaar naa xajoon na ci doomu réew mi te nekk na loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la lu ñuy ñaawlu si. ñu yëkkati ñun suñu alal ñun néew du doole yi te réew mi nga xamante ni bokk na ci fukki réew yu gën a euh, ñàkk koom ci àdduna nga daal di yëkkati seen koom di ko jox nit koo xamante ni benn du doomu réew mi mais ñaar moo ngi euh, nekk di xeex li nga xamante ni mooy der bu ñuul ñett mooy ki nga xamante ni fuggul sa doom bu juul euh, nit ku ñuul fugg ci réewam kon ñàkk na loo xamante ni ñun dañ koy dañ koy ñaawlu nekk na loo xamante ni lu ñuy rafetlu te gisuñu tamit lu waroon mën a tax ñu yëkkati suñu alal tamit di ko jox nit ku mel noonu surtout que koo xamante ni tey euh, dafay politique lokku ci kujje France tey dafa mel ni tey non ingérence boobu noonu ñuy wax ni France waru ko def tey ci suñu ci euh, bu réew dafa mel ni nag président Macky Sall loolu noonu la bëgg a def lii nag am na leneen tamit lu muy wund ah nañ toog di xool lan la mais gëm naa ni daal nekk na loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la nekk na loo xamante ni tey gisuma benn sénégalais boo xamante ni bu fekkente ni am na lu mu lu mu war a lu mu a rafetlu la. Mhm. Euh, beneen ponk bu soxal actualité bi di arrestation euh, journaliste bu Walfadjri bi di Pape Ndiaye jàpp nañu nag dafa wax wax yoo xamante ni ci magistrat yi dëgguwul ba fi ñu toll nii mi ngi ci loxol yoon euh, ban gis-gis nga si gis nga ci am parce ñu bëri jàpp nañ ne euh, liberté de la presse moom dafa menacé wu fii ci Sénégal. effectivement loolu loolu moom du du man rek du yow rek mais yaakaar naa sénégalais yu bëri constaté nañ loolu que ni liberté de la presse euh, depuis si accession wu euh, président Macky Sall lom koñ na trop ci ci suñu réew mi ndaxte bu fekkante ni journaliste yi lañ leen di tëj ci seen euh, cadre liggéey bëri na ça veut dire ni am na problème boo xamante ni mu ngi pesé ndax nit ñi dañuy bañ ku wax dëgg ndax nit ñi dañuy bañ journaliste bu exercer pleinement role ah loolu nekk na ay question yoo xamante ni euh, ñun ñëpp ñu ngi koy posé wu mais tamit baax na tamit Euh, ñu xamal ni journaliste yi aussi euh, du rek nit lu la neex wax wala nit lu la neex def mais je pense que euh, journaliste war nañ ko mën a aar dëgg la war nañ ko mën a aar mais tamit war nañ mën a def de sorte que tey muy procureur de la république muy kilifa bu mu mën a doon ci réew mi ñu jox ko wor ma bu ma yellool mais tamit kilifa yi nañ am yërmande ak compréhension ak maturité boo xamante ni mooy mën a permettre à tey euh, suñuy ay doomu réew képp koo xamante ni domaine boo mënti liggéey nag ñu war la ci mën a aar. beneen laaj euh, di euh, prix wu location bi wàññi nañ ko depuis premier mars yow naka nga gisee décision bi nga xam ne njiitu réewu Sénégal moo ko diggoon sénégale yi daal di koy def ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am mooy ni rafetlu naa ko dëgg la. wante nag ñun waa gëm sa bopp dañu jàpp ni euh, du décision bi nga xamante ni moom moo war a mën a saafara tey mbirum location ñun dañuy jàpp ni ñun waa gëm sa bopp si suñu programme ñu ne tey pour régler problème mu location euh, yi dafa tey sénégalais bu nekk war na mën a am kër bu mu moomal boppam sénégalais bu nekk war na mën a am toit boo xamante ni moom ak njabootam ñoo koy moom ñoo fay dëkk parce que euh, ñëw wàññi coût location Euh, déplacer simplement la problème la parce que bu fekkente ni Sénégal chaque année ñu ngi fay ñun ñi nga xamante ni ñooy fay loyer ñu ngi fay huit cent milliards yaakaar naa ça pose problème huit cent milliards yooyu noonu ci lan lañ ko injecté ci location huit cent milliards yooyu tey bu fekkonte ni nit ku nekk amoon na këram yaakaar naa amoon na feneen foo xamante ni war na ko foo war a mën a dugal donc wàññi perte baax na mais li gën mooy li nga xamante ni moom la président Bougane Gueye Dany proposé li nga xamante ni moom la la grande coalition gëm sa bopp proposé mooy à ce que tey euh, sénégalais bu nekk mu mën a am këram am nañu suuf yaakaar naa dëkk bi nekk na dëkk boo xamante ni étranger am ci suuf moo gën a yomb téeméeri junni yoon doomu réew mi am ci suuf Euh, ñu gis ni aussi euh, ubbi nañ autopont bu bu Cambérène AGEROUTE daal di soulager usager yi bu baax a baax naka nga gisee euh, réalisation bi nga xam ni président Sall def na ko yéen waa gëm sa bopp da ngeen koy apprécier waa wala déet. waaw dañ dañ koy apprécier parce que nekk na loo xamante ni dina soulager tey euh, automobiliste yi ndaxte ñun lu ñu jàpp mooy tey ndakaaru bëri na oto mbedd yi xat nañ et mais jàpp nañ ni xëy na pont boobu war na mën a indi saafara par rapport ak rond point Cambérène ni mu doon mel parce que rond point yaakaar naa nit ñi daan nañ ci Euh, perte temps bu bëree bëri bëri boo xamante ni nit ki waroon na nekk ci ay soxlaam na waroon na nekk ci liggéeyam mais ak situation bi bi nekkoon cela cela posé beaucoup de problème moo tax nag Euh, bi ñu gisee nii tey autopont bi tijji nañ ko dañ ci dañ ciy am contentement parce que ñun li ñu bëgg rek mooy sénégalais yi euh, dund dund boo xamante ni euh, seen dem ak seen dikk dana yomb loolu moo tax dans le programme de gëm sa bopp ñu ne tey jii nii désenclavement wu yenn artères yi ci Ndakaaru ak li ko wër dafay nekk loo xamante ni yoon la donc loolu moo tax euh, tey muy la grande coalition Gueum Sa Bopp ak le président euh, Bougane Gueye Dany amuñu lu dul di rafetlu loolu waaye nag di ñaan yàlla tamit autopont boobu bañ a ni rek autopont wu Kër Massar. Euh, fi ñu toll nii naka ngeen di préparer élection présidentielle bu deux mille vingt quatre daanaka yegsi na est-ce que seen coalition gëm Sa Bopp ñu ngi waajal mbir mi. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax ndax waxtu wi ñuy may wax ak tey euh, ay ndaw gëm sa bopp ñu ngi ci biir dëkk bi di def ay prospection di dem di seeti ji nit ñi di wax ak nit ñi di leen expliquer li nga xamante ni moom la président Bougane Gueye Dany am yéene tey ci kër gi waxtu wi nii may wax ak yow tey am na tey ay doomu euh, gëm sa bopp ay doomu réew mi ñi nga xamante ni ñu ngi nekk di monter ay cellule si ay nit ñoo xamante ni am nañ yéene ànd ak ñun liggéey donc ci loolu nag euh, ñu ngi préparé bu baax ndaxte xam nañ ne élection présidentielle ñun am nañ mbër bu baax am nañ programme bi gën kon nag ñun jàpp nañ ni bu ñu yàlla tegee loxo incha allah rabbi daañu daañu si yegg ak jàmm te tamit yàlla dinañu may ndam ba yéene bi nga xamante ni moom le président euh, Bougane Gueye am ci réew mi yéene bi nga xamante ni tey ñun nit ay doomu réew mi moom lañ am ci réew mi yàlla mun ñoo mata may ñu mën ko matal. Euh, beneen euh, laaj est-ce que kon euh, président Macky Sall bu sampee ndëndëm euh, deux mille vingt quatre yéen da ngeen si ànd waaw wala de troisième candidature bi. loolu yaakaar naa ndey kumba sénégalais yëpp gis nañ projet wu euh, combat non au troisième mandat ñun ñoo ko fi njëkk a soulevé yaakaar naa ñun ñoo ba ci tey jii nii ñun ñoo nekk ñi nga xamante ni ñoo ci gën a mën a xeex te du moment bii kon lañ koy nangu. ñun jàpp nañ ne président Macky Sall def na la mu waroon def ci bopp réew mi yegg na euh, fi nga xamante ni moom la deuxième mandat am jeexee ndax moom moo toogoon ni ko falee deux mille dix neuf euh, mooy nekk dernier mandat am nañ ko deux mille dix neuf kon nag yaakaar naa gor sa wax ja vingt quatre incha allah yeneen candidat ñooy ñëw yeneen xale yu ndaw ñooy ñëw ñu daal di kay nag euh, moom mu daal di war a mën a uuf ay rakam organiser élection yu transparente daan na leen dem leen ngeen jongante ku euh, gane ñu xam ne kii la yàlla teg ci bopp réew mi donc moom warut a bokk te warut a mën a bokk. visitam bi amal Sédhiou yaa ngi koy rafetlu waa wala déet en tout cas def na ay réalisation yu am solo foofu foofulee ca Sédhiou ci euh, suddu réew mi. Ndeye Comba euh, président Macky dañ ko fal pour mu def ay réalisation visite boobu mu dem defi ji euh, Sédhiou damay wax la campagne déguisée boobu noonu du amul lenn lu ñu ci war a mën a rafetlu parce que tey nit ñi mu mobiliser woon Matam mobiliser leen Tamba mobiliser leen Thiès ñooñu la mobiliser waat euh, Sédhiou donc foofu amul lenn loo xamante ni tey jii nii ñun dañ ko ciy rafetlu ndax suñu alalu réew la ñu jël saax saaxe ko suñu alalu réew la ñu jël dugal ko ci loo xamante ni tey jii pour mumbaay ak ci euh, xumbaay kese la simplement pour euh, faire croire aux Sénégalais que président de la République nii mu ngi si xolu nit ñi Macky Sall mii tey jii moom la Sénégalais yi bëgg donc am na droit am comme ñoom niñ koy waxee deuxième quinquennat alors que loolu du li nga xamante ni mooy dëgg du li nga xamante ni moo war a mën a am donc euh, amul lenn loo xamante ni muy man muy sénégalais yu bëri lu ñu lu ñu lu ñu ci lu ci euh, rafetlu. dernière question fi ñu toll nii ñuy fàttaliku événement yi fi amoon mars deux mille vingt et ba fukki ak ñeenti sénégalais ñàkk ci seen bakkan deux ans déjà événement yooyu la euh, yan kàddu nga ci mën a sànni. Euh, d'abord inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laay wax ñaanal ñi nga xamante ni ñooy ay doomu Sénégal ñu fi seen bakken rot te mu nekk lu ñuy ñaawlu lu ñuy ñaan yàlla dooti ci am waaye nag loolu pour mu banee amati nag foog ki nga xamante ni tey moom la yàlla teg ci bopp réew mi ñu comprendre loolu xam ni ay doomu réew mi ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo perte seeni vie te tamit bu forcé dem ci euh, troisième mandat euh, bi mu bëgg a imposer nit ñi Euh, troisième candidature sax laay wax ndax du am troisième mandat troisième candidature bi nga xamante ni moom la bëgg a imposer nit yaakaar naa lu mel noonu rek moo fi amaat du fi jub donc muy nekk loo xamante ni lu ñun ñëpp lu ñuy ñaan yàlla mu am mu mu bañ a amati la donc mu euh, di ko di artu di artu ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo féete ci nguur bi parce que ñu bàyyi xel ni tey dañoo war a bàyyi euh, way bu rafet tey ci réew mi bàyyi way bu rafet boobu nag moo war a mën tax ba euh, doomu Sénégal yooyu noonu nga xam ne seen bakkoon rotoon na ñu bañ a amaat yeneen doomu sénégalais yoo xamante ni seen bakkan dafay rot loolu nag ñuy nekk lu ñuy ñaawlu di ñaan yàlla tamit bañati di am parce que euh, bu amee rek du doon tey lu gënal kenn tey te yaakaar naa war nañu politique war nañu def leneen ak leneen sans pour autant que ñu Samb Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. merci beaucoup Ndeye gërëm di la sant di tamit ñu ñuy déglu. Boubacar Samb délégué général nga ci engagement citoyen gëm sa bopp coordonnateur départemental bu Pikine ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité ci sa disponibilité.